part cette réforme sur l'administration euh, ban réforme d'importance nga jàpp ne war nañu ko def ci processus bi boo demee au niveau du conseil constitutionnel justice ci boppam c'est un grand chantier la justice sénégalaise c'est un grand chantier ku nekk président de la république te incha allah sunu candidat lay nekk kan ci ban ci Bassirou Diomaye Faye kon Bassirou mooy seen candidat waaw loolu nañ ci dikkaat ok incha allah bu nekkee président la République son premier chantier c'est la justice <coughs> parce que lui-même c'est une victime de la justice sénégalaise Bassirou Diomaye Faye depuis le 17 avril il est en prison bientôt def na déjà neuf mois en prison pourquoi pour avoir fait un post sur Facebook critiquer les magistrats ça veut dire que dans ce pays mën nga ne profs universitaires yi ils sont payés à ne rien faire mën nga ne les enseignants dañoo bëgg xaalis man nga ne douaniers yi c'est des c'est c'est des corrompus mën nga ne journalistes yi c'est des journalistes alimentaires mën nga wax lu la neex tous les corps de métier mais un magistrat kenn amul droit wax ko dara c'était pour régler des comptes politiques il ne voulait pas voir Bassirou en liberté loolu la rek donc moo tax ma ne la justice sénégalaise c'est le premier chantier. Mais c'est grave ce que tu il ne voulait le, pas le voir. donc le procureur qui s'est autosaisi. dans mais cette affaire procureur non xaaral rek. assumer li ngay wax. non man li may wax rek lu ma ko procureur qui s'est autosaisi dans cette affaire là. waaw il l'a fait à des fins politiciennes. mais bien sûr dama ne la dama ne la Bassirou sa place n'est pas en prison bu nekkoon ci dëkku yoon xalaatuñ ko mais le procureur dépend de qui du ministre de la justice kan moo nekkoon ministre de la justice Ismaïla Madior Fall Ismaïla Madior Fall mi nga xam ne nii c'est le tailleur constitutionnel de Macky parfois tu te dis kii li mu jàng fu mu ko jaar parce que yëfu àdduna rek mooy tax mu doon def yenn actes yi mais loolu mooy la réalité donc la justice c'est le premier chantier bi nga xam ne ni ci lañ war a attaquer